suñu mbokku sénégalais ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp seen TV ci biir internet bi saa su nekk mbir bu amee ci biir réew mi seen rédaction seen TV point info dina déplacé wu dem andi leen ay xabaar yu leer. loolu moo waral ndeyjoom bi nga xamante ne dañ ko faat ci anam yu ñaawa ñaaw Touba ñu déplacé wu dem seeti famille bi waxtaan ak ñoom ñu andil ñu ay leeral yu yaatu yaatu ci faat bi nga xamante ne faat nañ ko ñu bàyyi leen ngeen seetaan entretien bi nga xamante ne am nañ ko ak ñoom. ku baax ñoo ngi lay nuyu eh, di la jaale lu ñu bokk naqar bi nga xamante ne dal na seen kaw seen TV jóge bu Dakar ñëw jaal leen eh, aussi eh, waxtaan ak yéen. gis nañ version yi dafa xaw a bëri. moo waral ñu sees si leen waxtaan ak yéen jaale leen ñu bàyyi la nga nuyoo nga wax ñu yow yaay kan. salaamaaleykum waa Sen TV ak waa Sénégal man maa ngi tudd Modou Diop di mag ci soxna Ndeye Diop. dëkk fii Touba Soura. di leen wax tamit sigi leen seen wàll yéen ñëpp ndax xam nañ ne. dese bi waxuñu la Sénégal mais àdduna bi yëpp la métti. amul képp koo xam ne rek doomu aadama nga mhm. te yëg. te méttiwu la. Mhm. fu nekk jëleen dégg nañ fa appel fu nekk ci àdduna. Mhm. xam ne naqari bokk ngeen ko ñun. est-ce que mën nga ñu expliquer yëf yi nan la demee. waaw ñun de mbir mi dañoo xale bi dafa demoon keroog dimanche ne woon day jëli ay bulletins bi mu dem sax yaayam mi ngi koy jox 5000 pour mu jëlaaleel koy ñawam. après bi mu démé nak ba takusan ba ba ba bari tusbaar gis ñu ko ñu xaw ko laaj ma dañ jappal dafa jallon nak ci kër fami fenn ñu tok ba timis ñu ko nak ta xalé bi moom don yendu Allah bu jangé rek day jangé rek ñew parce que alcorane la doon jangé ba waccé commencé nak déma ci école française di fi jangé après nak ci lañ tok wër xol xool kiwuñu ko ñu xey ci gulli gi wër wër gisuñu ko ci lënd bi nak man mi ngi fekk ma ngi Dakar ci lañ wër man tamit ma dugal ko ci internet bi partagé ko ak sama benn rakk bi ñun ñëpp famille bi yëpp nag jóg ku nekk di ku nekk wër wër wër wër gis ñu dara dégguñu si dara ci laa nag sama benn rakk bi fi nekk daa ne ko il faut que da ngay dem police ak gendarmerie ak sapeur ak hôpital parce que xale bi mën naa génn def soog wala mu génn ñu jàpp ko wala dara xamul kii xamul xamul xamul fu mu jëm léegi da ngeen def déclaration boobu noonu ma dinaa ko def. du mu demee ma ne ko tamit da ngeen koy jëf information bi tamit ngeen yóbbu ko ci rajo yeeg télé yi bi ñu defee loolu ba ci suba ga ñëwut muy muy muy mardi mardi heure bi ne rek ay 10 heures yooyu ma woo leen ne leen dem ngeen gendarmerie ñu ne dem nañ ma ne dem ngeen sapeur ñu ne sapeur ne ñu depuis ñaari fan amuñu cas ma ne leen kon nag mbir maa ngi man leen bàyyi leen kon man section recherche bu Dakar ndax côté boobu laay liggéey maa ngi a HLM.

ñepp dañu ñëw wër ma parce que xamoon nañ ne man parce que fofu ñepp ma xam dama leen wax ne xalé bi réer na ku nekk di ma laaj di ma laaj mais bi mu rek tek ma tok sama machine ma joy fofu non lo xamne joy met parce que ñun musuñu xalaat ne dinañ gis xalé bi te duñ ko gisse bakkan lolu ñun musuñu ko imaginer dinañ gis xalé bi te duñ ko gisse bakkan sama rek bi bi bi leen police way na leen baxna na yéen ay yéen ay job mu ko ah bi mi dem wa ko kër gi ñëpp dañu reetaan nan nday moom ñu dem ñu ne ko dañ ko rey moom jour boobu noonu faatu sax la naroon na def nee na fi ma nekk moom bi mu demee dafa daanu parce que moom nee na bi mu dem mi ngi yaakam naan kon bu ma paree mën a jaar dem liggéey. Mhm. ñu dem ñu ne ko dee na. Mhm. muy lu ñu metti trop. Mhm. lu ñu bett trop. nga xam ne famille bi ñëpp la metti euh, Serigne bi jóob euh, gannaaw ba nga xamante ni euh, annoncé nañ leen dese Ndeye Diop situation bi famille bi nan la ko dundee fii fii si Touba.

xale bi dafa xeex ak nit nit ray ko ñu kii ko mais ñun bu ñu demaatee ba gisaat ba gisaat information yi gis image yi ñu dem. yow gis nga image am tiim nga ko. non man gisuma image am parce que maa ngi Dakar. Mhm. man bi ma ko yëgee 17h 20h ci laa jóg quitté Dakar ñëw fii. 20h mhm. ci laa quitté Dakar ñëw fii. Mhm. mais sama rakk yi demoon ak sama ñoom papa ñoom gis nañ image yi. bi ñu gisee image yi maanaam xale bi nga xam ne daanaka sax ci mbuus sax lañ ko def. comme ni gisee. mu nekkoon xale boo xam ne nag comme ni ma la ko waxee rek famille bi yëpp dañ ci amoon yaakaar. yëf yi fan la amee fan la ko defee. affaire bi mi ngi amee xayra. paaleen. mooy si deux yi rek. di jëm Dakar. paaleen. foofu la mbir mi amee. Euh, kii ko def moom foofu la dëkk wala. waa kii ko def moom doomu kilifa la nee nañ. Mhm. mais foofu dafa luye woon. moom dafa luween foofu. dafa woon foofu nu mu tudd. mi ngi tudd Abdourahmane Mbacke. Abdourahmane Mbacke. donc si Mbacke Mbacke Mbacke la. Mbacke Mbacke la. ok aussi tamit am nañu information ne yéen famille bi baale ngeen loolu est-ce que dëgg la. ñun famille bi du ñu baale tey du ñu baale ëllëg du ñu mos baale parce ku sant Mbacke gënul ku sant Diop wala ku sant Fall wala Fay ba bu rayee ne ñu ne dañ lay baal suñu borom moo gën a xam doomu aadama foofu te dana ku ray nañ la ray bu fekkee ne nag loolu ñun amul fii nii dëkk bi. loolu amu fi kon li yoon li yoon tëral ci kuray nit peine boobu noonu nañ ko teg te ñun famille bi dañuy con continuer combat bi porter ko. Mhm. te dañoo bëgg tamit lii nii ñu bañ ko nëpp nëppal procureur de la mu jël dossier bi amee main. parce que xale bi moo nekkoon taaw yaayam bu jigéen. Mhm. yaayam am ci moom yaakaar. Mhm. mu dem ba mat ba war a sëyi. di jàppale yaayam. nekk tamit taaw papam bu jigéen. doon jàppale papam ku ne xam ne doomu doomu jigéen ak papam. papam def ci moom lu nekk. yaayam def ci moom lu nekk. bëggoon bu màggee tey dimbale leen. Mhm. ñu xëy na ko coppet ray ko. Mhm. donc yéen daal euh, information bi ñu gis si biir presse bi ne yéen papam baale na loolu amul. papam sa baale te du baale. papam mhm. d'ailleurs sax moom nekk fi waaye mi ngi ñëw. papam en extérieur la nekk. mu ngi nekk Italie. yéen bokk benn pap. ñoo bokk benn pap. yow da nga jàpp ne xëy na nëpp nëppal mën na si am. nëpp nëppal mën na si am parce que cas mel noonu dañ ko gis Sénégal ba taay boo nekkee doomu kilifa nekkee doomu kilifa. ñu tëj la ñaari fan ñetti fan ñu ne def nañ grâce génne ko. Mhm. te loolu ñun duñ ko nangu. Mhm. Mhm. lool duñ ko nangu. famille bi ne jën nañ seen i matukaay yu mat sëkk. donc porte ngeen plainte. dinañ porte plainte parce que bala ñu defee yëpp dañoo bëgg bàyyi ba autopsie bi génn. ok donc autopsie bi génnagul. autopsie bi génnagul. xale bi kenn robagu ko. xale bi kenn robagu ko. ok donc autopsie bi kañ lañ koy def. autopsie bi tey lañ waxoon. parce que tey lañ waxoon lañ koy yóbbu dakaar tey la ñu waxoon lañ koy yóbbu Dakar. Mhm. da di xaar ba autopsie génn ngeen soog koo waajal. dañuy bàyyi ba autopsie bi génn ñu soog koo waajal. Mhm. si ngeen di porter plainte. Mhm. di ci woo nag communauté nationale bi yëpp jigéen maanaam association féminine yëpp ñu ngi leen woo ñu jël combat bi porter ko parce Sénégal li ñu jigéen dafa bëri. jigéen comme léegi ko banaliser comme jigéen bokkatul ci société bi. da ngay jël jigéen mun na xoolal neexul rek te loolu dañ cee war a jug Mm-hmm. dañ ci war a jóg. Mm-hmm. xoolal weer bi ñaata jigéen lañ ci rey. Mm-hmm. te du mujj fenn dañ lay tëj deux ans trois ans quatre ñu génn la te loolu nag ñun duñ ko bàyyi li mu sedd. sëriñ bi jóob jëyee bi bi mu amee ak léegi eh, famille bi nga xamante ne seen doom moo def jëyee bi est-ce que jot nañu ñëw jaale leen bokk ak yéen naqar bi donte ne ki ay mbàkke mbàkke lañu. waaw ñooñu ñëwaguñ fi gisaguñ kenn ku seen mbàkke ko xam ne teg na fi tànkam. gis ñu tamit benn kilifa bu nekk ci dëkk bi bu fi teg tànkam. Mhm. mooy wàllu administration ñi fi nekk di wàllu mhm. religieux. Mhm. amul kenn ku fi ñëw police moo fi ñëw. ak sapeur ak ñi nga xam ne nit ñu baax lañ dañuy dégg rek coow li mu metti leen. comme wàllu presse beeg ñooñu. mais kilifa yi nekk ci dëkk bi moom comme si que dara amul. amul kenn ku déplacé wu ñëw fii na njaboot gi massa wala lenn. te loolu da leen naqadi yéen. daf ñu naqari parce que dafa mel ni ñun am xar la ñu rayal. te kii du xar nit la di nit ku amul ku ñu amoon yaakaar ci famille ku wàcce alxuraan ñaari yoon ba pare ñu gé di déggaat beneen version ci moom loolu daf ñu daf ñu naqare. Euh, man li ma bugg a xam version yi bari na. Mm-hmm. yëf bi mu amee boobu ba léegi lan moo leen si naqat yi. version yi ñuy dégg te kenn xamul ci dara lu dul dégg ci rajo mbedd rek kankan li ñu bind lépp xamoo fu ñu ko bindee waa ñëw ñu ci kër gi li journaux yi bind nag li ñu wax parce que jour bi ñu fi njëkkee ñëw boobu kër gi dañoo nekk ci naqar kenn waxut. démb am na benn rajo bu fi ñew bop mom man sax man lañ def interview ma wax ak sama ben magu papa ak tay yow mi fi ñew muy wa Sen TV. Mhm. parce que tamit lii tamit mooy journalisme quoi. hmm éthique ak déontologique. Mhm. loolu la ñuy hmm te li mo yoon da nga nit famille bu ñu nekkee ci naxar bu tëb tëb bi da ngay ñew laaj famille bi lan la déplacer wu laaj len lan la. Mhm. famille bi wax prochaine fois nit bu nekkee ci naxar da ngay ñew dalal ko ba paré hmm laaj ko moom parce que ki faatu faatu na mais ñun ñu fi des dañuy des ak coow. dafa yow a yow nekk du mën a du man dafaa yeegul. ñun moo tax. dañoo bëgg presse bi yëpp fu ñu jaaroon bi ni ñu ñëwaat fii nii. ñu wax leen ni mu demee lépp. comme yow nii nga def yéen waa Sen TV. parce que loolu mooy information. bi wér. bu mu ñëwaatee tamit ci faat gi. ñun dafa am lu ñu jaaxal Je bu bi ko man personnellement je lan la enquête bi di genn mais man donc dafa am ay complices. man dama japp na lolu kenn nit mënu parce que bo leen gisee biron citerne yoy ñu def ndox nga ray nit duggal ko ci ci kenn nit ci xalé bo xam lañ ni 18 ans lam amul ben titre amul ben dara ñun bëgg enquête bi gëna a ñu xol ba xam est-ce mbir amul keneen ko ci parce que xalé bi jour bi jour bi jour bi xalé ñun xale bu gor boobu dañ ko woo famille bi woo nañ ko. Mhm. parce que xamoon nañ ni kele bañ ko woowee daal ko koy laaj ba bañ ne ko léegi dañoo bëgg nga jël faro dugal ko ci seen group yi mu ne leen groupe boobu man sax dama cee quitté ndax dañuy saaga te boobu fekk na xale bi dee ba pare. est-ce que xale boobu 18 ans war naa man a am xel moom rey nit ba pare nekk conscience tranquille am. moom mi rey à peu près ñaata at la am. ñoom 18 ans la ñu wax. mooy ki rayee mooy ki waaw ki ñu rey ñaata at la am ki ñu rayee 15 ans lay am 15 ans. 15 ans ah. moom moo tudd Ndeye Diop moom mooy sa rakk bi. mooy sama rakk. waaw waaw. mais ñun famille bi li ñu jaaxal mooy xale bi ñu woo ko téléphone ba mu ne moom dina ci def ay ñaan sax. Mhm. pour ñu gis ko jàppale ñu ci wër bi. Mhm. loolu est que xale bu am 18 war na mën am xel moom. moom Mbacke Mbacke la kan mooy waajuram. moom Mbacke Mbacke la waajuram nag moom dafa génn àdduna. Mhm. mais si njabootu Serigne Touba la bokk. si ci la bokk. si njabootu Serigne Touba si mhm. si ban buntu la bokk. waa Daara Khoudoss la. mais bu famille ñëwee dina gën a leer. Mhm. xëy na famille dinañ fi ñëw. Mhm. xale bu góor bi ma ko ko gis. musuma ko gis. man musuma ko gis. Euh, ban appel ngeen di lancé état du Sénégal situation bu metti bi nga xamante ne dal na seen kaw pour mu bañ a amati mu saar mu saafarawu définitivement. mooy. nit dafa for doomu aadama dafa for problème yu mel ne bu amee yaa ngi dégg wala avant mooy am état bi na yokk sécurité bi dëgg la ñun sun kii sax am na éclairage public parce que Touba Ca Kanam def na fa ay làmp bundu kër bu nekk mais état bu Sénégal dañu bëgg dañu bëgg daal maanaam mu gën a yokk rek sécurité nit ñi di dem ci école di jàng mhm. élèves yi mhm. parce que ñun waa Touba ñeme wuñu woon école mais lii day tax ñu gën a ragal école française parce que yóbbu sa doom muy jàng ci école bi mu jóge fa bañ faat ko fa déjà keneen ku amaat dam na ah est-ce que la daloon kale du ma dal kon nañu gën a encadré suñu sunu école yi yaa ngi dégg mhm. parce que xale bi nag ñu ko ci école bi waaye nag xëy na kam xamanteel si école bi la xamante ak moom. donc ki muy xamanteel kooku tamit élève la. élève la ñoom ñaar ñoo bokkoon fu ñu doon jànge euh, waaw ñoo bokk benn classe aussi. ñoo bokk benn école bi nag ñoo ko bokk. waaw ok lan moo si taxawaayu école bi tamit bi mu yëf yi bi mu amee. waaw école bi ñun ñun woon nañ leen bi leen woowee école bi wax dëgg yàlla ñoom tamit ay jàmbaar lañ parce que bi ñu leen woowee nee nañ ñun kat tey kat jàngale wu ndax jour dimanche la ñoom wax nañu ko ñëw def ak def ay ay ay ay ay recherche xam nga wax def communiqué laaj ba xam kenn gisu ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla def nañ ñoom ay jàmbaar lañ. Mm-hmm. mais nag xale bi daal moom ndake boobu daal moom daal ndake dafa génn rek xam naa daal euh, bi mu demee foofu daal xam naa ne daal booba daal mm-hmm. jaaraatul ci kii bi. waaw boo léegi boo fàttalikoo xale bi dafa décédé lan la lay def. waa def may metti xam nga rek bu jigéen dafa sax si xol ndax bu ma imaginer rek keroog bi may céetal ndeysaan ñu ñëw indi seen i seen i seen seen seen day vrai que ay lañ indi seen i deux mille seen trois seen i seen i seen i seen mhm. di ci sonn ñun dañoo bëgg mu màgg mhm. bañ koy tuddee doom mhm. ñun loolu boobu yéene bu rafet la ñu am ci moom dañu amoon ci moom xale bi ku yaru la xale bi xam naa ne quartier bi mu dëkk sax am na ñoom na xamuñu ko ñoom demuñu dikkuñu ñoom demuñu dikkuñu bi mu jàngee ba pare jàng alxuraan macha allah. Mhm. bi mu jàngee ba pare papam amaan ci moom yaakaar dem yóbbu ko école française comme ni ma la ko waxee sànq rek. Mhm. xale bi yar boo am solo lañ yar lañ def ci moom. Mhm. parce que ñun loolu lañ xam. ñun yar lañu xam. ndax ñun ñii di wax ak yow tamit ay taalibe lañ. gannaaw ba nga lancé appel état di Sénégal. Ah. sénégalais yi tamit yëf yi métti na leen trop ban appel ngay lancé sénégalais yi moo xam góor jigéen la parce que lii mënoon na dugg kër bu nekk. maanaam sénégalais nag moom mention spéciale wax dëgg yàlla état bu Sénégal ñi mu yilif bu meloon na ñoom dëkk bi corrupte lay def keroog jour bi ma ko dugalee seetlu dafa réer jour boobu noonu li ma jot ci appel kenn xamul nu mu toll ci ñoo xam ne dañ koy dañuy dañuy gis ma isate ko ñu jël xale bi fan la réeree fan la réeree def ci ay cherche yu am solo def ci ay montage yu nekk pour dugal ko fu nekk. Mm-hmm. bu Sénégal yëpp ñoo ngi leen di gërëm. Mm-hmm. ñu nekk ci réew mi ak bitim réew. Mm-hmm. ñoom def nañ ci lu ñu mën lépp ba pare tamit bi xale bi faatu tamit dañoo continuer nekk nañ justice. te ñun justice rek la ñuy laaj ci Ndeye Diop. ñun dañoo bëgg justice def liggéeyam dem ba mu jeex. dañoo bëgg justice dem def liggéeyam dem ba mu jeex. xale bi jàpp nañ ko. xale bi jàpp nañ ko. est-ce que déféré nañ ko. waaw parce que mi ngi woon mi ngi woon police déféré nañ ko. Mhm. mi ngi woon police. Mhm. parce ñoom dañ doon continuer def seen i mais defeere guñ ko yakarna wala mhm. bok buñ ko defeere tey duñ wala dem mhm. parce que mi ngone police bu janatu mhm. bo léegi yow da nga bëgg enquête bi ñu gën ko xuusal japp nga ne amna loxo yu si man personnellement loolu la jàpp man dama japp ne amna leneen loxo yi ci laale dama bëgg mbir mi enquête bi dem ba jeex ñun ba nga xam buñ jotté suñu xel dana dal ñu ki dong mo ray xalé bi wala dafa am ñeneen ñu andal parce que man mënuma imaginer ben xalé bu ndaw mom ëppul xalé bi nan la koy ray ba duggal ko ci bureau bi dugal ko bidon bi nan la toll. mooy satadoo yi ñu def ndox rek. waaw. kibéer am kibéer bu ndaw. xale bi ko am jëmm la wala. xale bu jigéen bi. waaw. am na jëmm tuuti nag mais nag pas pas tellement. Mhm. waaw donc da ko dugal ba pare tëj ko. daf ko dugal ba pare tëj ko mais dafa. dafa amoon ndox. non bi ñu turee ndox mi bi ñu turee kii bi parce que boobu sapeur moo fa jiitu. waaw ñun xamuñu am na ndox wala. parce que bi mu ñëwee ak police scientifique ñoom mhm. Mhm. fekk ñu fa. waaw. mais daal bi mu ko reyee ba tëj ko foofu noonu si kaw ba tëj ko foofu noonu si kaw ñun loolu daal daal mënuñoo imaginer daal benn nit moo ko def. Mm-hmm. yow da nga jàpp ne dañ ko rey dugal ko foofu wala dañ ko fa dugal mu dee foofu. déedéet dañ ko rey. dugal ko foofu dañ ko rey dugal ko foofu. Mm-hmm. parce que loolu la waa ji wax. Mm-hmm. dañ ko rey dugal ko foofu. dañ ko rey dugal ko foofu. mais kër googu amul boroom xanaa. waaw ñun ba léegi loolu lépp tamit ay question la. parce que kër kër kër kër kër gi nan la mën a demee noonu mais nag bu dee nee nañ kër locataire la tamit xaw na ki parce que kër gi si kaw route bi ne ci kaw tali bi presque mm-hmm. waaw loolu lépp daal dañoo bëgg daal ñun daal dañoo bëgg enquête bi daal dem ba mm-hmm. kër gi am na ñu fa nekkoon amul ñu fa nekkoon yëpp dañoo bëgg ñun enquête bi wan ñu ko ñun ñu mën a xam mm-hmm. sëriñ bi Diop Modou ñoo ngi lay jaalewaat euh, di la masaw yëf metti na lool ñu bàyyi la nga daaneel waaw man li may wax mooy damay lancer appel sénégalais yépp muy combat bi ni na ci sénégalais yépp japp parce que ku nek xamna wa Touba nañu def niñ mel ci walu yoon dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci dañ lu bari dañ ci mbir mi manam ñaari fan ñetti fan ñu faté ko té lool bu amé ñun dinañu metti lool té xëy na combat bi ñun fami bi rek dalu ñu té timi ndaw nañ ci xeex bi bëgg nañ ñëpp jappalé ñu ci bi mu baña nek mbirum ben fan ñaari fan bëgg na tamit nga may ma fofu rek ma waxat tamit ci presse bi. moy mhm. day dafa dafa nek lu doy war, mhm. wa day dafa nek lu doy war lu met, mhm. parce que suñu borom sax musiba la ko tudde moom. yalla mom bi mi wax ci day dafa ne dama leen tek musiba muy ñen ñak lo leen ba pare wala ma ray leen. day kon musiba la. kon fu mu dugg rek musiba am fa. kon nak léegi liñu bëgg moy presse bi buñu wax nañ ñew ba ci kër gi ak buñu bind ñu ñëw ba ci kër gi waa kër gi wax leen comme yéen ñi ngeen def mais toog sa bureau rek woo benn Samba Ndiaye mu wax la benn affaire nga bind ko jàpp ne loolooy dëgg véhiculé àdduna bi yëpp parce que man dem bi ma revue de presse dama tiit ñoom fu ko xamu ko mais du ci kër gi ñu laaj famille bi. wala amul amul famille bi famille bi amul benn journal bu fi ñëw laaj ko ku dul TV mhm. ak ak raja rajo bu fi ñëwoon démb. Mhm. rajo bi fi ñëwoon démb moom wax fa dëgg mhm. yàlla. ñëw na fi tamit def moom tamit ñoom ñu def seen rôle journaliste ñëw wax laaj famille bi. dañu bëgg nag ñoom ñëpp ñu ñëwaat. ñu wax leen information yi na mu demee. ñu mhm. bàyyi toog rek xalaat ne lii moo jaadu rek ñu koy ko. Mhm. parce que xale bii xale bu tegoon buñ tegoon ci ci ci ci yar ak teggin la. Mhm. ba mënu taalibe. buñ tegoon ci yar ak teggin la. dama bëgg ñun ñu bañ a jàpp ne xale bi dafa tawoon xale bi tawuti mbokkam. xale bi jàngi laa moon ak ñëw. jàngi wàcc. waaw. di wax nag procureur de la république ñun ay citoyens sénégalais lañ dëgg la ay néew doole lañ mais ay citoyens sénégalais lañ mbir mi nag ñoo ngi ciy wax ñoom ñu jëlal mbir mi dossier bi seen loxo. Mhm. ñu jël ko état bu senegal mhm. ñoo ngi koy wax autorités yi nekk ci dëkk bi nañu xam ne ki ñu rey doomu dëkk bi la kilifa diine yi nekk ci dëkk bi nañu xam ne ki ñu rey ci dëkk bi la dëkk. mënuñu ñoo indilaat bakkan. mais mën nañ ñoo dalal suñu xel comme ni ko ñëpp di defee. mais ñu rey nit comme dara xewut fu nekk nit di la woo kilifa yi nekk ci dëkk bi kenn defu ci kenn waxu ci loolu ñun lu ñu ñaawlu la. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. jërëjëf. Euh, waa Sen TV ñoo déplacé wu. ñëw sees si leen fii Touba. pour waxtaan ak yéen ñu mën a am benn version boo xamante ne sénégalais yi dinañ xam ne lii moo am. Mm. ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax yombal bi ngeen ñu yombalal entretien bi. Mm, jërëjëf jërëjëf. merci beaucoup suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax topp bi ngeen di topp Sen TV si biir internet bi Fatou Ndeye Diop xabaar yi yamul fii bi ñu leen demalee Touba. lépp lu si aaju rek ay série de reportage lañ leen defal ngeen taaxirlu ko incha allah ñoo ngi leen koy ñëw tegal léegi léegi.